gi ambassade bu Guinée doon na li nga xamante ni dafa jafe ndaxte ay takkader yu takkoo takku ñoo nekk ca booru boobu immeuble ngir rek ñu bañ fee amal ndaje. ngir jàppal tànk taskatu xabaar yu nekk ci Guinée. ñu mujj koo amal nag ci pegg gi. non aux Euh, liberticide qu'on a vu émerger dans ce pays-là. am na nag ñett mbir yi nga xam ne nii dañ koo jàppee léegi crime ci biir Guinée bu ci njëkk moom mooy nga dénoncé ay ñaawteef yi nga xam ne ni nguur gi mu ngi koy amal ci wàllum gouvernance bi ci topp bu ci mujj nag moom mooy wax ci wàllum transition bi junte bi nag ñoom ñi nga xamante ne ñoo daane Alpha Condé ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak benn ñu daal di tëj télé yu bari ak i rajo privé naam nag dogu woon nañ ci kanamu RSF ne dinañ respecté liberté de la presse. ñu nakari ci mbir mi yëpp mooy digge yi nga xamante ne ni euh, premier ministre bi defoon na ko daanaka dara respecté wu ko. Euh, dañuy sàkk ci ñoom ñu ñëwaat ci dogal bi nga xam ne jël nañu ko maanaam ñëwaat ci bile arrêté. bu ñu sukkandiku ci représentant média guinéen yu ñu suspendre lim bi nag ëpp na li ñu jot a joxe. ci beneen wàll bi nag gouvernement ba fa nekk dafa bëggoon a ger yenn kërum tasum xabaar. beaucoup de groupes de médias. ay këru taskatu xabaar yu bare ñoo ngi leen di eh, jege léeg-léeg ñu dem sax ba dig leen xaalis ba la ci toll ñetti milliards ci seen xaalis. 3 milliards de francs guinéens. ba tey nag lu ëppi junni journaliste ñàkk nañ seen liggéey ay barabu tasum xabaar daanaka tëj dañ ña ci yëngu ñu bëri di nëbbatu ngir rek ñu bañ leen faagaagal RSF ak i partenaire am di ñaan waa communauté internationale ak waa CEDEAO ñu daal di ciy àddu.